wa ñaari waa mu def loolu yoon waaw lu neex la ñaari ñaari la jox ñu doole ñaari waa mu la jox loolu mooy yoon loolu moo gën a wax la rek nii ak tool su daanee sifflé dox ci diggante Tony numéro 2 ak Ada Boy Bawal ndaysaan Tony moo ngemboo ngembulu zone li Ada Boy Bawal moo ngemboo ngembul Lagos li mbokk yi Bas ngay am pakala pakala junior pakala junior ak Emine François Gomis mbokk yi Emine François Gomis moom ngeen jàkkaar lool Pakala Junior wàllu yooyu nga di fa am Tony ak ki nga xamante ni mooy Boy Bawol Boy Bawol Tony Boy Bawol Tony ña ngay xoolante wala ña ngay leewaatoo mbokk yi samedi 18 janvier 2020 stade Caroline Faye bu Mbour Yaxya Diop moo ñu fi woo njiital Faata production demi-finale yi la ñu toll noonu dox ci diggante ndaysaan Boy Baol ak Tony wàllu wee ndaysaan Emine François Gomis ak Pakala Junior ndaysaan cey làmb Boy Baol ak Tony ña nga ca ba tey Boy Baol Tony Boy Baol ña ngay lewaatoo ndeysaan Franc ak Pakala Pakala numéro 2 ak Franc Franc ngi dox ci koom Franc ngi dox ci koom Pakala lu Franc nar Franc ngi dox ci koom da koo Pakala bu doon maa yow doo yombal jàppale Pakala numéro 2 ak Franc macha allah daw na jël Boy Bawol Tony jël na ko Boy Bawol mbot na ko Tony jël na ko Boy Bawol Tony fi mu la final Boy Baol dem na final Fara ak Pakala hee Boy Baol Boy Baol def nga lu rëy ndeysaan cey làmb oh sëñ ngi am Emine François Gomis ak Pakala numéro 2 ndeysaan cey làmb oh Lamine François Gomis ak Pakala bas koy am foofu ndaysaan Pakala numéro 2 Pakala numéro 2 ndaysaan avertissement Pakala numéro 2 jël na benn Franc ngi dox pakala numéro 2 ak franc ba ñu ngi ci demi finale bi booy bawol qualifié na aada booy bawol def na lu rëy oh, lamba ngi noonu ndaysaan dem na terrain gaal gi ñàkk dem na adresse Senghor ñàkk dem na stade Diop Iba Mar Diop ñàkk dem na arène nationale ñàkk tey ñëw na finaalu moom aada booy bawol lamb amul secret nangu rek nangu daa jël cëru bañ ndaysaan Franc mu ngi dox ci koom mu ngi dox ci kaw Pakala numéro 2 Franc lu mu nar wala Pakala lu mu Franc Franc dox na ko génnee na ko saako yi Pakala boo yéexee Franc gagné par décision arbitrale avertissement yi bari na am nga ñaar. bul fàtte taxawal bëre sa combat Franc day dox ci koom Franc day dox ci koom Franc day dox ci koom waaw day dox ci koom ngàdd na ko jege nga saaku yi da ngay génnaat da ngay génnaat da ngay génnaat trois avertissement disqualifié nañ ko Franc gagné na Franc gagné fekk naa la arène nationale fekk naa la stade Jom Iba Mar tey nga final waat fii ci Mbour loo yëg. waaw sant rek yàlla ma yàlla may ndam rek dañuy jàng bëri rek quoi. Franc mooy sa secret. ah rek ànd sama grand rek di liggéey. xam nga ki nga am final Ada Boy Baol. waaw la ndaan la fi képp ku fi tax rek champion nga waaw xëy lii moo gën quoi lii la yàlla def. bonne chance. kay gaa ngi noonu. Ada Boy Baol nga finalu loo yëg. baa ji kontaan na di sant <laughs> yàlla. rek. tey ñi nga xamante ne ay favori la woon yëpp ci poule bi yow yaa lay assurance bu mbuur pakala selemele góor a soog tey loo yëg. waaw sant yàlla di kontaan di xam ay xale lañ. defaguñ dara ci laamu dañuy jéem rek xam nga di ñaan yàlla tamit mu joon ay final final daal incha allah. yaa baa jëlee. lii mooy sa ci ci ci ci dëkk bi. waa ci Mbour benn demi final laa fi daaw waaw mais du waa ci la mais mooy sama bi si Mbour wax dëgg yàlla. <laughs> ñu éliminé la quart de finale fekk ma fa ñu éliminé demi finale fekk ma fa compétition yi saa yoo demee di nga nar. waaw mais compétition rek man loolu laa xam man làmb laa xam mënu maa xëy toog. parce que ñi may àndal man xëyuma gontu ma dañ may jox ndékk ni ma jox añ dama jox reer liggéeyu ma defuma dara sama métier làmb moo tax tey ma bàyyi ko toog kon foog ma foog ma suivre làmb daal fu ko fa. bonne chance. jaayee baa jëli. cey làmb. ndeysaan xale yi ñoo finaalu. final bi mënut a yomb. Siyaa kaa ngi noonu. ngembo ngemb lu weex li. Siyaa ka jël na hey Siaka ak Orange 2 ndeysaan cey lamb Orange 2 Siaka Siaka Orange 2 cey lamb Siaka Orange 2 ña ngay leewaatoo ba tey ndeysaan noonu bi yoon daa mel ni dañoo bëgg combat bi gaaw ndeysaan dañoo bëgg combat bi gaaw Orange 2 ak Siaka ña nga ca Siaka jël na tànk ba Siaka jël na tànk ba woon na ko ndomba Siaka daanu na Orange 2 daan na Siaka oh Siaka daanu nga jël bu la bett daanu nga jël bu la bett. Boy Baol dugg na Boy Baol na nee na ko tibbal ci suuf si jox ma tibb na ci suuf si jox Boy Baol def na ci ngemb la mbokk yi final bee ci des ci digg jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare ba gis nga maa ngi toog tey sama consultant sëñ Bas laa jël def ko comme consultant borom mbég-mbég taar bi moo baax boo gore sëñ Bas tey ñu ñëw ci compétition bi gis nga parcours bi nga xamante ne Ada Boy moom la def ak Emine François Gomis loo ma ci mën a waaw Baye Djili nuyu nañ mbokki internet yi ñuy seetaan ci wasaare lamb di jaajëfal ñëpp di jaajafal aussi Fata production ci journée bu réussir bi ndax gis nga amoon nañ njàqare biñ ne mbuur lañ jëm ci stade municipal ba ñu ci bëri ñu ngi doon xalaat ba xam ndax dana feesam déet mais bu ñu fàtte ne euh, Joal ci ci mbuur la bokk bu ñu fàtte donc amateurs du ma ne sous région bi sax mais ñi nekk ci alentour yëpp dañuy ñëw wàlliyaan si comme ni ma ko waxee woon ci bëccëg mais tey gis nañ làmb ju neex mais Baye Djily est-ce que xam nga ne parcelle dafa xew. parcelle dafa xew ndax tur yi fi am yëpp compétition yi fi am yëpp presque ñoom ñoo ko jël. mais c'est normal. lu tax lool. parce que roi des arènes mu nga parcelle. roi des arènes bu demee parcelle c'est normal làmb ñibbi parcelle xoolal tournoi yi fi ñëw depuis ñu commencé ba léegi nii. amul tournoi bu waa parcelle di dem te jëluñu ko rawatina millions yu bari yi 10 millions ya franc la woon ak Cheikh Tidiane ñaa ñaari mbëri parcelle nga dem ci cinq millions ya keroog ca Iba Mar Diop booy fay la woon ak Émile François Gomis ba tey ñaari parcelle tey ci 3 millions yi fii ci Caroline Faye ba léegi ñaari parcelle la Aada Boy Bawal ak Émile François Gomis te boo xoolee parcours bi ñuy def. bu ñu bu ñu laalante seen biir pour nga dindi leen day jafe dañuy dem ba ca cappaandaw ga ñuy soog a tase parce que boo xoolee Parcelles Assainies bi bokk na ci gox yi ëpp ay mbër sans frappe loolu moo tax te mbër yëpp mën a bëre nag mbër ya fa nekk yëpp mën a bëre boo fa tuddee góor sook soog tudd Obali tudd tey Émile François Gomis mi nga xam ne boobaak léegi mu ngi def ay ay preuve tudd Aada Boy Bawol tudd Cheikh Tidiane Niang presque tudd Boy fay te des na des na xale yu ndaw yi ñëw. champion yaa nga fa mais tey li ma jaaxal mooy Ada Boy Baol dafa décider dañ na Pim ñu jox ko assurance bu mbuur mu daan ko ñu ne déetawaay mu am selemele daan ko ñu ne déetawaay mu am góor a daan ko ñu ne déetawaay mu am pakale bu mbuur daan ko tey kon ñi nga yaakaaroon ni ñoom ñëpp ñooy ay favori Ada Boy Baol moo leen éliminé. xam nga dafa nekk mbër moo xamante ne nii li nekk ci moom ci technicité mbër yi mënuñu koo xam tant que jàppante ak moom parce que niveau bi ñu koy xoolee mooy niveau bi mu toll ci lutte avec frappe bi niveau boobu boo ko xoolee aada booy bawol mu trompé la parce que champion yi muy daan tey lamb boolewu leen ci lutte avec frappe dañ ko rawee lu bëree baree bari mais technicité bi nekk ci moom moo tax ku mu jàpp fii nga xam ne jàppante nga ak mbër te nag nañu dem ba ci kanam Ada Boy Bawol fii mu teg tànkam nii dana doon champion bi Franc nekk dana doon champion bi booy fay nekk dana doon champion bi Reug Reug nekk parce que mbëru mbapat la boo xamante nii xale la dese na lu bëree baree bëri ci yaramam lu war a màgg ci doole ci xel aussi loo xamante nii war naa ñëw donc mbër la moo xam ne bu ñu ko suivre ci ñaari saison dana dooni li Franc doon dana dooni li li li Reug Reug doon. Emine François Gomis yi ci jot a am yëpp moom moo ko jël lan mooy secret. am na entourage boo xamante ne nii ci làmb loolu rek bénéfice la ngay contact ak ku ci mel ni Yékini Senior di contact ak ku ci mel ni euh, Modou Lo Roi. à suivre combat baa ngay daw kaay. jërë ngeen jëf mbokk yi samedi 18 janvier 2020 Caroline Faye bu Mbour Faata production moo ñu fi woo ci njiital ba Yaxya Diop Yékini Ada Boy Baol Emine François Gomis mbokk yi moo leen féete ndijoor Ada Boy Baol moo leen féete càmmoñ. arbitre bi sifflé na ña nga leewaatoo sëñ Bas wala jàppante nañ. jàppante ñoom ñaar diggante Émile François Gomis ak Ada Boy Bawol ñaari mbër yoo xamante ni seen parcours metti woon na mais finalement ñu ngi en final ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk gàcce ngaalaama instant bii dama naan amul kenn ku ci perte ndax li nga diggee woon ak ñi la gunge woon ñëpp def nga ko. instant bii nii ñu nga ca cappaandaw ga baa jili diggante Émile François Gomis ak ki nga xam ne mooy Ada Boy Bawol Ada jëli na ko. Ada Boy Bawol jëli na Emine François Gomis ndeysaan Franc bi compétition yooyu commencé ba tey bi mooy troisième sortem moo jël deux yi tey mu final waat Ada Boy Bawol jël na tànk ba Franc lu mu nar bañ na Ada bañ na Ada sol na ko sol na ko dëpp naax da war ndoom ba kumpareel nii la la def yanu na door ci suuf Emile François Gomis jël na jëlaat na jëlati na ko yóbbooti na xaalis ba oh Emile François Gomis Franc dafa bëgg million jiili Franc dafa bëgg million dafa bëgg million buñ fàtte fukki million ko tax a jóge États-Unis ñëw Sénégal jël na ko tegaat ci cinq teg ci yeneen trois mais xoolal deux millions cinq cent yi ca sum production suba la est-ce que Franc dana dem dina ñëw million rek ko tax a jóg ci kaw mu ngi wàcc ci suuf 10 la jógee dal ci 5 tey mu dal ci 3 suba 2,50 la franc bu ñëwee caafu mbëri. mbokk yi noonu lañ leen di tàggoo kon sëñ Bass ñu jël suñuy dëbës te xam ni bés dina ñëw mbokk yi noonu lañ leen di félicité fii ci stade Caroline Faye bu Mbour Yaxya Diop Yékini Fatou production moo fi organisé woon kii di Emine François Gomis moo ko jëloon ma fi seqoon ceeg sama doomu ndey sëñ Bass borom mbéeg meeg taar mi yaa baax yaa gore. yaa ma gën a baax yaa ma gën a gore baay jiili ñu jëfal ñëpp di kontaan ci yéen ñi commentaire ci suuf yéen ñi nga xam ne da ngeen bëgg ñu seet ci seen mbër te excès guñu ci ñoom xam ne ne wàññi la rek bu tàmbalee ci benn ca kaw la ñu jëm dañ naan benn ne ñaar ne ñett ku ñu ñëwagul sa kër xamal ne danañ fëgg sa buntu kër danañ seet si sa champion ndax xeebuñu kenn ñëpp lañ fi nekkal baay jiili ñun day ji seex lan njaaxaanaay rek la ñuy tëdd mu ngi noonu mbër ya ñu tax a ñëw gis nga wasaare lamb bu làmb amul dañuy lem suñuy kaaki dem nelaw yi làmb lañ fi nekkal ku nekk ci làmb ñu ngi ci yow ngay promoteur ngay manager ngay mbër képp koo mën di nekk te yëngu ci làmb même boo nekkee simple supporter rek jiili boo ñu soxlaa ñu ñëw seet si la xanaa neex na. neex na waaw kon wasaana. jërëjëf mbokk yi